newuñu ci lu mel nii fim mu daanaka dañuy làmb rek xamatuñu sax fu ñuy teg seen seen seen seen loxo xamatuñu fu ñuy teg seen tànk xamatuñu lu ñuy wax ba ci ba ci ñi gën a mag ci réew mi ñu nga xam ne jàpp jàpp nañ ni ñoo war a gindi nit ñi ci wàlli doxalinu jamono xamatuñu sax dara bu ngeen ko seetloo fi mu nekk nii wóor na ma ci wóor na ñi kenn ku ci nekk mën naa jël ci kilifa yi nga xam ne ñoo ñoo tey réew mi ku la ci neex di ko jàngal di ko jàngal jamono di ko jàngal yoon woo xam ne bu fekkoon te ne daf caa tegu te nangu laa déglu na bañ la weddi nga teg ko foo xam ne fi mooy mooy gën fi muy fi mu fi mu fi mu jàng muy dox loo xam ne lii moo gën li muy dox man xam naa ne yéen mën ngeen loolu bi lay la man xam naa ci dara. kon nag na ngeen téye ci loolu. mu dox ba ci kanam.